noonu ci biir 4-4 bi c'est mi ngi noonu. roi des arènes. ndeysaan bés gi ni la nekkoon buur muy le 28 juillet moom ak Bombardier le roi mi ngi noonu doomu Pikine doomu Casamance surtout Samba Xoyaan ak a bëri tur roi bi moo ñëw tegu ci tur yi Xaadim Ngom ngi noonu astafurla Papa Ngom son grand frère mi ngi noonu. Hmm? ndeysaan mi ngi noonu Papa Ngom son grand frère mooy gérer lépp entrée bi lépp moo koy coroné mi ngi wax Ibou Sy maa ngi gis euh, suudu tamit mi ngi yor benn butéelam bi doo ndox ku ci nekk dafa am loo yor kii mi ngi yor leketam suudoo ngi yor butéelam ah Pap ngoom mi ngi organiser ci mi ngi noonu waa Taïchi nga ñu ngi noonu c'est le roi c'est roi des arènes the king est là Eumeu Sène agsi na fii ci stade Léopold Sédar Senghor ñu wàccee kaafu picc yeeg ndox yeeg ka yeeg fruit yi naa ay orange Maroc orange yaa ngi noonu pomme yaa ngi noonu banana yaa ngi noonu lépp a ngi wàcc c'est le king c'est le roi mi ngi noonu ànd ak waa Pikine waa Pikine ànd moom ñu ngi décompté ñaata personne ñoo dugg. ñu gis a chaise chaise chaise tamit la ñu indi chaise alimi ñoom yaa ku ne indi chaise. ñi war a dugg ñoom ñëpp ñu ngi leen di xool. déglu dafa mel ni mbër mi ngi wàcc le mi ngi noon di waaj a wàcc ñu yore cumikaay bi njëkk na dugg ndeysaan Eumeu Sène mooy waaj a ñëw le roi des arènes doomu Pikine yaay tey wane nañu doole pikinité bi góoru xuja góoru xuja ngoog Sëtu Samba Xoyaan il est Samba Xoyaan kor xuja xuja mën a joxe lekk mën a joxe ceeb mi ngi noonu mën a joxe ay jus l'enfant de la Casamance l'enfant séeréer ndeysaan Seydou Samba Xoyaan ñett le roi muy ñeent Seydou Samba Xoyaan benn góoru xuja deux doomu Casamance trois doomu séréer quatre le roi des arènes cinq yooyu cinq chapeau moom laa ko jox doomu Pikine muy siis ama seen a ngi noonu mi ngi taxaw di xool gars yi ñuy organiser ñi war a dugg ak ñuy warta dugg daa mel ni compté nañu ba pare ñi war a dugg ñeneen ñi dañuy jël ticket seen a ngi noonu sa king il est sa du sàmba xoyaan doomu séeréer doomu Pikine doomu Casamance et le roi des arènes actuel c'est Eumeu ndeysaan le roi est là bien entouré par son staff sécurité bi takk der yeeg ak sécurité boppam ay xaritam àndandoom waa pikinité bi xeeñ na tey ci kaw stade bi xeeñ na ci kaw tribune Léopold Sédar Senghor ce sont les Pikinois seen roi la ñuy accueillir moom mooy wàcc noonu ñu xool roi bi nag seen roi a ngi nii Eumeu Sène moom mooy wàcc noonu gis ngeen presse bi niñ ko daree rek. on di dugg mi ngi doon di dugg. ndeysaan buuxante yi c'est l'arrivée du roi warul yomb arrivée buur warul yomb buur bu yëngoo lépp yëngu c'est le roi des bu Sénégal mi ngi noonu ndeysaan soppe yaa ngi koy xool Arrivé bi, l'histoire retiendra ce 28 juillet 2019. Après son combat contre Bombardier, il des arènes Bombardier. Maintenant, c'est le king. Maintenant, la le roi. Bien concentré sur son sujet. Il parle avec son staff. Ah, bien concentré. Concentration buur laa gis tey. buur bi mi ngi tepp tepp. buur nànk lay dox. nit ñi di fëlëx fëlëxi. muy def nànk bu ñëwee si géew bi rek. ñu xool lan la war a def. buur baa ngoog. buur baa ngoog di def nànk danaan tenkam tenkam. nànk nànk doxu buur lay dox. doxu buur mi ngi joxe ay consigne consigne buur. <laughs> ay consigne buur lay doxee gis ngeen ko noonu mi ngi gàlloo seru séeréer ndeysaan nee naa leen mooy doomu séeréer nee naa leen mooy doomu kasamaas nee naa mooy doomu pikin mi ngi xool ci mikaay nee naa leen moom mooy góoru xuja gis ngeen abib bi accoutrement bi seru séeréer takk sengoor yor béjjenu kooba laay laay bi kooba bu bees la kooba bu bees tàq la day jënd ko bu bees sax waa kii kanamam bi du génn fii ndeysaan suudu mi ngi wax ak moom blanc mbaxana fan la Casamance wala mbaxana Nigéria buur baa ngi noonu di dem c'est le roi mi ngi noonu góoru ko jaangoog ndeysaan sa du Samba Xoyaan mi ngi noonu di dem ci géew ba eh. That was nice. Sam Ibis. I'm esa yi dañuy demine dañuy déminer luñ fi miine luñ fi suul ci ay mystique lañ koy sulli ñu ngi raam ñu ngi raam mel ni mel ni ñu nekk ci biir ndox ñu ngi mel ni ñuy feey ñu ngi mel ni ñuy wër jën ñu ngi déminer ñu ngi sulli saaku yi ndaxte waa Kër Modou Lo ñoom fi njëkk doon def seen cumikaay léegi nag dañuy déminer dañuy xool luñ fi fekk sulli waa lii dara wóoru ci ay gàllaaj ay téere jàmbur nga dugal ci sa loxo di sulli dara wóoru ci boo sulee sa loxo neewi mbaa sa baaraam damm nag ma a ngi noonu di génn dugg na ci géew bi def ay misigam ba pare cumikaayam miine miine demine léegi nag mi ngi génn le roi ngi noonu le roi roi baa ngi bonde nag de mi ngi bonde de roi baa ngi génn ànd lañang ndeysaan nekk xaritam Eumeu Sène yi def nañu déplacement tëb nañu barrière yi fële nañu frontière léegi nag dañuy dem fële ne tribune couverte ba lañ jëm gars yi jóge nañ virage màmm nañu waa Pikine màmm nañu dem nañ couverte jàmm ak salaam dem leen rek ngeen toog si jàmm ak salaam waaw fay sa virage dem couverte yéen a am fulla fulay jaay Dakar màmm nañu bëtt nañu frontière <laughs> frontière bi séparé couverte ak virage yéen a am fulla waa Pikine cumikaayu ëmma seen nekk dem leen rek ngeen bu kenn dóore bu kenn saagante dem leen si jàmm ak salaam